لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إلنا إلا إليك التجا الظهرا ولسنا نقاف الضر ممن سواك لا كذلك لا نرجو سوى يسركم يسرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi amaan nañ mbégte toog ak yéen ci jataay bii nga xam ne li ko waral mooy tàbbi nañ ci weer wu tedd di weer wu màgg woo xam ne cheikhul xadim moo waxal boppam ne weer wi teral na ko weer woowu mooy wan mooy weeru rajab ku ne xam ne ne bokk yi weeru rajab ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam rañaane woon ca boromam subhanahu wa taala andil ñu sëri caam bu mag bii te mooy waxtu julli juróom waaye ku xam ne ñun murit am nañ ci tawfeex ju yaatu ndax ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab ca la jàmbaari lislaam ja di Cheikhna Mouhamadul Fadal ma nga xam ne lépp lu Serigne Touba bëggoon tegoon na ca tànkam ba defal ko ko ñu dégg bayit yi nga xam ne bàyyi Galas Mbàkke moom Cheikh Abdoul Fatah yëkkati na ko tam ci doon tawatal jamono ca jamono joo xam ne xatoon na lool bis boobu nag moo agsiwaat loolu moo tax bi mu agsee ku ne xam na ne Serigne Abo Baraka mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Mouhamadul Fadal gépp ànd ko ak ay rakkam di sëriñ Basiiru ma nga xam ne mooy jëriñam waaye Cheikh Abdoul Fatah mi nga xam ne moo yore kàddoom te toog ci këram tey jii mu demaat ca sëriñ Mouhamadul taxaa ndax ku ne na xam ne sëriñ Fàllu ku koy tudd ndigal rek ngay tudd moo tax mu demaat Cheikh Mahamadul Muntaxa laaji waat ko ndigal nag ba mu jox leen ndigal nag loolee nga xam ne moom lañ fas yéene waajale màggalu kazu rajab te mooy bisub Cheikh Mahamadul Fadal ba mu ganee woon àdduna daaru salaam bis boobu nag moo dëgg malaat moo tax ñu ngi toog ci kër sëriñ Abdul Fatah mu fab kàddoom jox ko Cheikh Mahamadul Murtala rakkam mu feggoo ak sëriñ Ahmadul Badawi ak mbooleem sëti Cheikh Mahamadul Fadal yi nga xam ne ñoo lépp lu jëm ci waajtaayu bis bi kaddu yooyu la sëriñ Mahamadul Murtala bëgg yëkkati mu jëm ci nan nun nañ war waajale màggalu kazu rajab ak yan wan taxawaay lañ ci war a am sëriñ bi nee na mi ngi muslu ci seytaane di wax auzu billahi mina seytaane rajim di wax bismillahi rahmaani rahim mu wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee mi ngi nuyu bokki taalibe yëpp di nuyu bokki julit yëpp nee bàyyiwul kenn di ci turu sëriñ Abo mi fi toogal Cheikh Mahamadul Fadal ci turu jëwriñam Cheikh Mahamadul Basir ak jëmmi Cheikh Abdoul Fatah mii nga xam ne mooy rek kàddu kër gi nee na nuyoo yooyu yëpp nag ñu ngi koy jébbal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal sëñ Touba tey ñaan mu yàgg fi te wér ak mbooleem njabootu sëñ tubaa gépp ak taalibe yëpp ak jullit yëpp ci barke Serigne Touba nee na Cheikh Abdoul Fatah moo ko jox ndigal ni wax ne na soññee màggal gi màggal gi kenn fàttewu ko waaye fàttaliku daf daf ñoo war ndax sunu borom moo ñu ko digal ci alxuraan kon noo ngi fàttali màggal gi muy bisub cheikh mahamadul fadal di bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem baytil maqdis jóge fa dem fa sun borom mu jox ko ngëneel yu bëree bëree bëri muy ngëneel yoo xam ne am na ngeneen loo xam ne ñun ñëpp nag ñoo ko bokk muy julli yu juróom waaye nag ci biir loolu sunu sunu sunu wayjur sunu wayjur sunu lépp sunu lépp Cheikh Mamadou Fadal guddi googu ci la ganee àdduna muy gan gu tedd muy gan gu tedd gan gu yiwe gan gu bari xewal gan gu bari ay xewal defe naa mbooleem jànkat yi defe naa ne mbooleem jànkat yi mosuñoo gis benn téere mu bind ni mosuñoo gis benn téere bu mu bind ne am na gone àdduna ci am na ku ci guddi googu am na kaneen ku ñëwaat jamono ci guddi googu defe naa bu ñu koy war day defe naa bu ñu koy wër day du yomb a gis loolu taw feex la kon loolu taw feex la sunu borom moo ñu taw feexale sunu a moo ñu taw feexale alaaji Fadlu kon noo ngi ñaan ci barkeem ci barkeem ak ak léppam. ak i léppam. sunu borom defar sunu lépp tey ëllëg. màggal màggal gi ni ko daan waxee. yàgg nañ ko màggal. yàgg nañ koo màggal. ci teewu Cheikh Moustapha Fadilou. ci na ko daan def na ko ñëpp ñu ànd ak sëriñ bi. nam ko daan digle ñu daan ko ànd ñun ñëpp ak sëriñ bi. ginnaaw alaaj baara taxaw. ginnaaw bi alaaj baara taxaw. moom it la sëñ bi daan digle. mu di ko digle. ñu daan ko def nañ ko daan defee. sëñ Abo Mbàkke mii fi teew nag. di ñaan mu yàgg fi ca moo tax mu joxe waat ndigal rek. ñu seet nañ ko bëggee rek. mu ne sëñ Muntaxa it ni mu ko waxee. ba fa sëñ aboo demee mu laaj ko ndigal def ko ne nañ ko defee woon daaw rek nañ ko def ren jii kon ñu xam ne noonu ci ndigal la ñuy tënku rek buñ sëñ bi digalee ñu def fas yéene it duñ tere moo di màggal gi moo li ci ëpp solo dëgg-dëgg li ci alxuraan la waaye dafa fekk sëñ Muntaxa joxe ndigal waaye dafa fekk sëñ joxe ndigal ñu ne nan daal di tàmbali jàng alxuraan ba bisu kasu ba nee nag ñu nañ ci daal di yokk nag rek njàng mi lu mu gën a bari gën a baax xasida it lu mu gën a bari gën a baax salaatu ala nabi yi lu mu gën a bari gën a baax kon nag euh, nañ ko nañ ko doxale ko daan doxale rek ginnaaw gan ñi dañuy ñëw di di ñu seet si ginnaaw gan ñi dañuy ñëw di ñu seet si di ñëw ci Cheikh Mamadou Fadal nañ leen teelu ci yar nañ leen teelu ci yar ak taalibe akuk taalibe ak bernde rek ak bernde rek loolu am na ci solo lool loolu am na ci solo lool kon nag sëñ bi kon nag sëñ bi. Eh, na ñaan nag. ngi ñaan nag. li xew ci àdduna bi. li xew ci bi. muy mbas mi. muy mbas mi. mu jeex tàkk. mu jeex tàkk. am nañ ci yaakaar ne. am yaakaar ne. sëñ Fall ci boppam. sëñ Fall ci boppam. wax ne ku jub ku jub boromam la. wax ne ku juboog boromam la. kon bu ñu ñaanee ci barkeem. kon bu ñu mbas mi jóge fi. am nañ yaakaar ci ne. incha allahu. dana fi jóge fi xam ne fii. nekk. mu dem foo xam ne duutuñu ko gis. kon nag kon nag mooy ndigal bi sëñ Fataa joxoon ma di ko wax. kon daal loolu mooy ndigal liñ sëñ Fataa joxoon ma di ko wax. maa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp. sëriñ bi wax na ni. sëriñ bi wax na ne. mi ngi ko yëgal président Macky Sall. mi ngi ko yëgal président la république Macky Sall. ñoom nekk yëpp. ak mboolem nguuram gépp nag bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn ginnaaw loolu itam bi li mu li mu digle nañ ko jëf ni mu digle rek na nga yor ay masque ak sel yi ñuy laal ci loxo yi te bañ a loolu mooy ndigalul sëñ Muntaxa sëñ lu mu ñu digal rek nañ def loola asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi ñoo jot déggandoo kàddu ndigal yooyu ginnaaw boo xamante bii kërug ndigal laaji waat na ndigal ci bis bi nga xam ne bisub ngëneel la jëm ci àdduna bépp muy bisub Cheikh Mahamadul faadal war a doon fukki fan ci weeru tubaab dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab bis boobu nag ni ko sëriñ bi waxee jàng alquran te daal di koy tàmbali jàng ay xasida te daal di koy yokk waaye def ay berndeef waaye mën a nekk tey moytu jaxasoog yi euh, sët yi nag ñi ngi tàmbali seen i waajtaay ci nañ ko daan defee ci plateau yi nga xam ne moom lañ war a def ci télé yi ñi ngi ciy soññ képp koo xam ne yaa ngi yor ab télévision wala site internet loo mën a dugal ci waxtaani sëñ Fall yi wala nga nga soññ ci jaam jaami yàlla yi ñoo xam ne bisub ngëneel la bis la boo xam ne daal réew mi soxla na ñaan ca bisub ñaanukaay la ñoo ngi ñaan bala ñu caa àgg lépp luy njàqare ba tiitaange ci réew mi yàlla ko ci yàlla génne ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu